merci beaucoup. Permettez-moi de rendre grâce à Allah et présenter nos sincères condoléances euh, au peuple sénégalais, euh, euh, au calife général de, de, et aux familles des bébés disparus suite au décès des bébés qui a eu lieu à l'hôpital, à l'une des structures à Tibawan. Féliciter également le calife général de la faille de Tijania, Cheikh Mahi Ibrahim Agnès, pour son travail remarquable, historique, un travail de fourmi qu'il a abattu dans la plus grande modestie. Euh, comme vous le savez, il, était prévu aujourd'hui, 4 juin, de tenir une marche pacifique à la place de de la nation jusqu'au rond-point de la RS. Mais la situation telle qu'elle a finalement fait que la marche n'a pas eu lieu. Parce que tout simplement, le préfet du département de Dakar et ses services nous ont notifié que l'autorisation ne pourra pas, ils ne pourront pas, ils ne pourront pas donner suite favorable à notre demande. Parce que tout simplement, il y a d'autres mouvement qui avait demandé avant nous la même date, la même heure et le même itinéraire. Une décision que nous n'avons pas besoin de commenter. Parce que soucieux quand même de la stabilité et de la tranquillité du pays, on a décidé de ne pas faire trop de commentaires et de nous soumettre à cette décision. Également, que tout le monde sait que la loi a toujours primauté les premières à avoir déclaré leur manifestation. Cependant, il est important d'apporter des éclaircissements par rapport à la démarche qui est l'une des formes parmi lesquelles nous avons choisi pour participer également de manière responsable et significative à, au devenir à la destinée du pays. Il est important également de signaler que la marche, notre démarche, la philosophie également de notre démarche, ne visait pas à protester ou à contester quelconque décision contre qui euh, contre quelconque corps. Mais l'occasion nous sera aujourd'hui d'inviter l'État du Sénégal à repenser véritablement sur la situation des militaires libérés. il est important de mettre en place une structure spécialement dédiée, euh, spécialement pour euh, réfléchir sur la situation de ces militaires libérés. Également inviter à l'État du Sénégal d'engager des structures, notamment le Bureau international du travail, sur la situation des militaires libérés dans les sociétés de gardiennage et agences de sécurité par rapport à leur salaire et à leur situation sociale, à eux ainsi qu'à leur famille. Réfléchir également quand le président de la République avait invité les populations à retourner sur la terre. On a toujours dit que les militaires libérés se sont toujours engagés, fin prêt à retourner sur cette terre à l'agriculture, au maraîchage et à l'élevage. Cependant, il est important d'inviter les gens au retour à la terre. Mais des mesures d'accompagnement également sont très importantes. Nous avons des ressources humaines de qualité. Nous avons des terres. Nous les invitons aujourd'hui à étudier les demandes, les demandes formulées sur la réflexion, en tout cas, de ces militaires libéraux sur les situations et dans le cadre de la lutte contre le chômage de ces militaires libérés. Euh, ginnaaw bi nga xamante ne comme ni ma ko waxee tànk ci nasaraan euh, jaal nañ xalif général bu Tidiane jaaree peuple sénégalais yi jaale également ñi nga xamante ne ñoom ñooy famille bébé yooyu nga xamante ne ñoo ñàkkoon seen bakkan ci benn mbir mu amoon fële ci structure bu nekk ci Tivaouane ñu ngi gërëm di jaajëfal di kañ ki nga xamante ne moom mooy le xalif général de la fayda ya Cheikh Mahi Ibrahima Niass ci ndam lu am solo li nga xamante ne peuple sénégalais bi yëpp amul jullit amul chrétien amul benn tarixa ñëpp ànd rafetlu ko ndax loolu ndamu Sénégal la ñu ngi ko ciy félicité bu baax di ko ci encouragé euh, ku ne xam na ne tey nag jàppoon nañ ne dañuy dox benn dox dox bi nag nekkul dox boo xamante ne pour xas nit wala pour bedd nit déedéet dañoo buggoon rek wane suñu ñàkk ànd ci li nga xamante ne moom mooy violence yi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku ci jamono yii ba tax na ñu déposé woon benn bataaxal ci ki nga xamante ne moo yor dëkk bi muy le préfet ginnaaw bi nga dénk joxee bataaxal bi mu tontu ñu ne moom ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay nattangoom ci li wàllu liggéey bi nañu demande boobu noonu du mën a sotti marche bi du mën a nekk ndaxte dafa am ñoo xamante ne ñoom ñoo ci jiit woon mun nag mu doon décision boo xamante ne mu doon mbir moo xamante ne dañ koo jël ak cër gu mat sëkk ndax ay responsable lañ damay faral di wax ne militaire libéré yi moom daanaka trait d'union lañ entre force de défense et de sécurité ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy population parce que ñaari pàcc yëpp bu ci nekk jàpp naa ne am na lu ñu ci xam euh, ñu prox ndolu rek indi ay leeral ci li nga xamante ne moom mooy ñàkk ndox boobu ak lan moo undoon ndox bi ndaxte nit ñi moom ndem invité woon nga leen ci mbir mbir ma amatul baax nag indi ay éclaircissement ci li nu mel waaye marche bi daal li ko ëndoon rek mooy jéemoo dox wane suñu ñàkk ànd ci li nga xamante ne moom mooy euh, agression yi ak violence yi waaye ci biir loolu dañ ciy porox ndolu rek woowaale ki nga xamante ne mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo ñànk ñoo ŋànk nguur wi ñu xalaataat ci li nga xamante ne moom mooy dundinu militaire libere ci société de garnage yi ndaxte dund bi ku ne xam na ne nekk na dund mu metti Euh, yor nañ seen i njaboot di liggéey 12 heures bi demeewul noonu euh, yokk ci tamit faj bi nga xamante ne seen wàllu wér yaram tamit nekk na loo xamante ne day xaw a sooxe léeg-léeg nguuru Sénégal ndaxte dégg nañ ki nga xamante ne moom mooy njiitum réew bi woote woon ci li nga xamante ne moom mooy ñu dellu ci suuf si dellu ci suuf si nag bëgguñu rek mu yem ci slogan waaye bëgg nañ mu doon loo xamante ne lu ñuy dëggal lay doon waaye nag ay la yéwén bi mu ko wootee fekk na ñun ñi nga xamante ne ñooy ay militaires libérés fekk nañu ca waaye nag dañ ci porox ndoolu wax ko ne ressources humaines de qualité maanaam nit ñi nga xamante ñoo war a dellu ci suuf si nit ñi nekk nañ fi suuf sang fi li ñuy wax rek mooy nguuru Sénégal militaires libérés yi nga xamante ne jot nañu def ñaari atub l'armée euh, joxe fa seen euh, carrière sacrifié wu euh, xeexal réew mi ci ni nga xamante ne moom lañ jàpp ne war nañ cee mën a béy seen waar donte nag engagement ci réew du jeex def nañ ci seen béy nañ ci seen waar militaire libéré yooyu nga xamante ne formé nga leen ñaari weer wala ñetti weer balaa ñuy jeexal ci armée war nañ leen a mën a gunge ba nga xamante ne euh, ñàkk xëy mi ñuy wax wala boo xeex ñàkk xëyu ndaw yi wala boo xeex euh, li liggéey euh, utal ndaw ñi xëy mu doon loo xamante ne lu dëggu lay doon ñu ngi ñaan également ci biir loolu nguuru Sénégal bañ a bàyyi militaire libéré rek na ci ut benn kuréel en tout cas boo xamante ne mbirum militaire libéré képp mooy doon loo xamante ne moom mooy sababam ndaxte loolu lu jaadu la ndaxte Sénégal doo dem ci benn kër wala ñaari kër wala nga dem ci quartier bu lëmb fekkoo fa juróomi militaire libéré ci quartier boobu te jàpp naa ne ci loolu noonu bu ñuy wax jamono bi ñuy wax kaaraange militaire libéré yi am nañ ci rôle bu am solo boo xamante ne ñu ngi ko ci joué te état war na leen mën a impliqué ci li nga xamante ne mooy war na leen mën a dugal boole leen ci li nga xamante ne moom mooy mbirum kaaraange boobu noonu ci leneen li ci am solo mooy nguurum Sénégal mi ngi wax euh, yokk kaaraange di recruter ay force de défense et de sécurité ci loolu noonu dañ ciy porox ndol ne nguuru Sénégal li tubaab bi di wax dérogation ci age maanaam xoolaat at bi yokk ko ba nga xamante ne militaire libéré yi nga xamante ne bëgg nañu dem gendarmerie en tout cas police wala yeneen corps paramilitaires yi nga xamante ne ñoo fi nekk en tout nga xamante ne lépp ci mbirum kaaraange rek état na ci góorgóorlu ba nga xamante ne at yooyu noonu dana ko gën a yokk leneen li ci ëpp solo moy ci li nga xamantene mom moom maa koy wax sank service yi nga xamantene mom la nguuru Sénégal tek ay agence ak yunu mel ay la yeween na fexé nguur yu agence yooyu euh militaire libéré gis ci sen bopp bu baax a baax a baax parce que nak, jàpp naa ne ñoom ñi nga xamantene dañuy wax formation ak financement ñu gis ne ñi nga xamantene am nañ formation ba paré li ci dess rek mom moy accompagner euh ñu ngi woté wat encore une fois occasion bi lay donne. parce que Sénégal jamono ji nga xamante ne ci lañ toll jàpp naa ne ak ku mu mën a doon foo mën a nekk koo mën a àndal war ngaa jéem a cultiver li nga xamante ne moom mooy jàmm jéem a woote jàmm jooju homme politique yi ñoo notamment ñoom laa ci gën a ñaax ndaxte réew mi situation fi mu toll woote jàmm ci kàddu ci doxin ci waxin dafa nekk loo xam ne lu am solo la parce que jàmm nag moom euh, amul kenn koo xamante ne euh, gënul ci yow